أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أغيثها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحسن الباغي من الشيطان عند ممر وفي الأوتان أحسن الباغي من الشيطان عند ممر وفي الأوتان أحاسن الباخي من السيطان عند ممر وفي الأوتان عبادة ابتدعت بسم الله وهو كفاني يسوي الملاهي وجعت كل الحمد وسكوري للمالك الرحمن والسكور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي jullit yi taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen noo ngi jiital ci nuyoo yi ak siyaare yi sunu sangi mbàkk yi fi toog di leen jox yéeguwaay yu mag ya ca way jur yu mag yu tedd ya di leen ci yóbbante ay ziyaare di barkeelu ci seen jataay bi te di leen wéttalikoo ngir jëmmi Seexul Xaddiim di leen yóbbante ab ziyaar ak i nuyoo ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Basir xalif général des Mourides di nuyu association bii jaarale sunu nuyoo ci moom ci sëriñ Sidi Thiam mi ñu bis bi am ci mbégte lool ndax nun dey bu nu doonoon ay gor bu dee ca démb bu takkoonub xare nun dañuy takk bokk ak moom am ndam mbaa nu bokk wuute ko ndax sikk nekkuti ne nun moo nu fopp fépp moo nu mag fuuf moroom yi ay doomam lan te li ko yàlla may ci teraanga jegewuñu ko relation bi ko yàlla may ci digganteem ak kilifay diini amuñu ko relation bi mu am ci digganteem ak kilifay aada amuñu ko xel mi mu yor yoruñu ko fa mën a dem jotiwuñu fa te téewut mu doyloonu def nu ni mu def doomi boppam yi amut lenn luy xew waxtu ne dina ma ko woo téléphone lu xew ci dëkk bi lu mu mën di doon ba ak li ak li may am am xereñu di teela yëgi mbir bari na lu ma yëg loo xam ne ci moom lay jaare ci biir kër Sëriñ Touba wala ci bokk yi walla ci leneen dëgg yàlla man de taxawu na ma taxawu waay boo xam ne yàlla rek laa koy bàyyee kon maa ngi koy sant te di ko gërëm waaye di sant gone yi nga xam ne ñoo def jëf ju réy ji ndax lii nii euh, lu mat a bàyyi xel la te mag ñi war cee xalaat dama am problème sax man bi ma ñëwee fii te jàpp naa ne euh, sëñ Ousmane Niass bu ngeen fi jógee di ngeen xalaataat. ndax du ngeen sukkandiku ci xale yi roy ci ñoom ndax mbir yi ngeen di jël di ko tudde kilifa yi baax nañu waaye ndax jërul nag ngeen di ko tudde seen bopp bu fekkee ne saxaadatul muridina bu amee événement tuddee ko sëñ Sidi caam mu mel nii daa jaar ba fi ñëpp te tuddee ko sëñ Sidi caam nag te gis ci biir sëñ Sidi Thiam sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima ñu ngi ko war a tudde ñëpp pourquoi du ngeen ko tuddee Sidi Thiam di ko tuddee Kéba Thiam di ko tuddee Ibrahima Thiam ak ñi ci def loolu sama xalaat la en tant que man dib ñeeño dong nag jàpp naa ne dana mat na ko pourquoi jarut itam ñu de ko déplacer ci koñ yi yàgg naa ko wax yàgg pourquoi du ñu déplacer mbir yi ci koñ yi ñu ngay màggal Amérique di màggal France di màggal fu nekk jumaa ji sëriñ Fallu ak sëriñ Abdoulaat ak grand màggal de Touba képp fa mën a màggal am penc la moo xam ne dafa wét dafa sensible pourquoi duñ def centraliser affaire yi di ko yóbbu ci koñ yi loolu lu tuuti la ci lu bàyyi ko ci lu bari waaw xale yi daal jaaxal nañu ma ndax lii man xaw ma association bi la xaw ma sëñ Sidi Thiam la xaw ma sura la waaye lii daal wax dëgg yàlla kii man la li tax ma di leen sant nag te di leen conseil encore su fekkee man naa ko mooy ñoom de bi ñu doonee ASC mënoon nañoo doon sport et culturel di finaalu koy duñ am pexe bu ñu tuddee woon tey sëñ Sidi Thiam ab final wallaahi man mosuma seetaan football waaye kon dinaa dem. bu ñu ko tuddee woon làmb musumaa dem ci course ba ma juddoo ba tey man Mbàkke laa dëkk de loolu leer nañ ñi lay wax kon man dinaa dem ci course ba bu fekkoon ne ñoom ñii tey dañu ne roi de arènes ci ñoom la nekk moo war a bëri ji tey grand combat aw ma pexe danaa ànd ak moom buñ ko ko tuddee dem ca dem dem dem bëri ji waaye nag am ngeen lu leen doy wëlis yooyu yi ma tudd na ngeen def sport nag waaye na doon karaté ak box ak kung ba nga xam ne bis bu tax loolu jotee ngeen taxaw defendre askan wi defendre waajur yi waaye bu leen woote mukk nag moom yeneen ya nga xam ne moom laa tuddoon donte nag ndaw dina ko def waaye yitte woo leen la jongante leen ba nga xam ne yéen association bi ndaw ñi ngeen wuutu leen ci métier yi ñu leen jàngal ba nga xam ne su ñu naan ku fi dàq liggéey mu génn ci association bi te war naa nekk fexe leen ba bu ñuy jongante ku dàq liggéey ci Sénégal ni ko fi Ndoye Niass defe woon bañ a génn Touba bañ a génn askan bi te association bi liggéey ci loolu former ay xerej ay kàngam yoo xam ne ci wàllu liggéey ci dëppale ko ak jamono dañu naan moom moo tàbbal lii ci secteur bi te noo ko jëlee ci wajur yi ndax am ngeen lépp te mën ngeen ko jàng jàng xam-xam bu ko wanee mën koo yër mi ngi fi manooree mu ko man dal na ngeen ko ci wajur yi tàggat nañ leen ci ba ngeen man ko loolu maa ngi leen di ñaan ngeen dolli waat ko ci bu baax. waaw tay jagal mi doon wax ak cant ak ngërëm ah, ndax bañ demee ca rojom ba <laughs> ngir bëgg mu defal ñu escort bi nga xam ne moo doon jàll sànq ci rajo yi da cee defuk jàppandal ngir jëmmi Baye Sidi Thiam ak ngir jëmmi askan yu bokk amaatu oyof tamit ñëw fii suñ jataay bi soññuñu ñaaxaat ñu loolu ñoo ko ciy sant bu baax di ko delloo njukkal di ko sant te Baye Sidi ndax man nañ ne moom moo Baye Sidi xam nañ seen diggante waaye dañ ko koy sant le rek ndax sant gi Baye Sidi moom moo koy sant waaye dañ koy sant te Baye ñun waa association bi ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax di la ñaanal suñu borom place ba makkaan ma gën a kawe bu baax a baax ci barke Sëñ Tuuba. bi ñoo wétali waat kay toog ñu wétali ko baax na bañ mu wét rek ah. auzu billaahi min seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi ddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraata allazina anamta alayhim xayril maxluubi alayhim wala laalimin gannaaw buñ leen nuyoo kenn ku ci nekk ci turam ak santam di sàkku ci jotaay bi bala ñoo jàllale kàddu yi canti Baay Sidi ñu jàng gannaaw Faatiha ñu jàng fukki lixlaasi ak benn ñu addiyal leen ko ndax ñaan du doy ndax xam nañ ne ci suba wàcc nañ fi kaamil def nañu ñaan waaye ñaan du doy ndax dañoo doon ay jàmbaar yoo xamante ni rawatina kilifa gi nekkoon ci biir kër gi di Seex Moxtaar Caam doonoon koo xamante ni ni ku jàmbaare woon koo xamante ni ku bëggoon lu baax lool daayira bi fu ñu masaan toll fii bu ñu masaan wax ak moom rek dafay jaar di ñu soññ di ñu ñaax te kilifa ci ñun ci jotaay bii ñu toog yëpp kilifa fi ak ñeneen ñu nekk ci yeneen béréb yi ñoo xamante ne nii ñoo xamante ne nii dañoo àndoon na ñoom liggéey bi dañ jiitu kon nañ ko nañ leen dafa dog boobu. gannaaw bu loolu jàllee Baye Sidi dafay sant gone yi. ci seen xalaat bu rafet bi ñu am te cant gi doon cant goo xam ne am na fu muy tàmbalee waaye amul fu muy yem waaye nag ni ko Baye Jagal waxee dafa am loolu bu fekkoon ni moom ca lañu nekkoon di ko sant mën naa am ni lii seddee xolam du ñu seddee xolom waaye nag lii ñu nekk mu mel ne ñu ngi ci silatu rahim loolu day loo xamante ne nii bu ñu amee association ba noppi wëlbatiku jagleel ko bis bii kon xolam dana ci sedd gu yi mu wax ne mu ngi leen di sant li tàmbalee ci président bi ba ca ka mujj bindu mu ngi leen di sant bu baax tey ñaan ci barkeb seexul xadim fu ngeen bëgg a yàbbu yóbbu association bii mu yegg fa ndax kat am na xel mu dal ci yéen ci taxawaay bu rafet bi ngeen taxaw dafa mel ne magul ci ñim fi bokkal nekk gënu ci waaye nag yéen am seenu baax ba tudde ko bis bi kon mu wax ne mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne mi ngi ci seen kanam mi ngi ci seen gannaaw di sant itam kilifa yi nga xamante ne bàyyi nañ seen yitte yépp ñëw teew fi li muy guddi guddi kenn amatul yitte ndax jëmmam ji kon day mel ne gannaaw bu mu sante eh, mbooloo mii nga xam ne ñoo ko jagleel bis bii ba noppi dana sant itam kilifa yi nga xamante ni ñoo fi teew ngir bisam bii ànd kook moom Baye Jagal sànq wax na ko sànq mel na ne lu mu mënoon doon rek danañ ko àndak moom ndax jaral nañ ko ko kon loolu day loo xamante ne nii cant gi am na fu mu tàmbale waaye amul fu muy yem bis bii ñu jagleel Baye Sidi day bis la boo xamante nii rëy na lool da te sii di day mi ngi leen di gën a ñaaxaat bu baax ngeen gën a laxasaayaat bu baax ndax lii mu am day yéene na leen ko kon na a gën a góorgóorlu bu baax taxawaat bu baax fépp woo xamante ni la daan teg tànkam ngeen ngeen mépp fa seen tànk ndax bu ngeen defut loolu itam dañuy da ngeen di jaaxal keneen ku mën di doon kon na ngeen gën a góorgóorlu bu baax daal mel na ne sant na ñëpp man nag yàlla dafa dogal sama digg moom dafa doon lu yàgg loo xamante ne nii day ak bokk ba napp dig xarit ba tax na bu ñu kàddu gi jox ma ko la ma ci war a wax lépp duma ko mën a wax ndax xol bu set Baye di nee na sant na góor sant na jigéen sant na ñëpp ndax gis na ne ñëpp a ko ëmbal aw yiw kon loolu mooy kàddu yi nga xamante ne nii moom laa ne woon dinaa ko ci danaa ko fi dottilil kon maa ngi jégglu ñëpp lépp lu ci manqué nañ xam ne ci manqué doomu aadama rek la waaye Baye Sidi moom ci yéeneem ak xolam ak bëgg-bëggam weesu woon na kàddu yi ma fi sànni asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñun dañuy dox ci cadre dimbalante. di ñaan yàlla képp koo xamante nii yaa ngi dégg suñu kàddu wala nga nekk ci biir jataay bi di nu dégg bool bii ñu teg képp ku ci def saw ñaq yàlla bu la ordonnance war képp ku ci def saw ñaq jàngoro joo indi woon yàlla na ko suñu borom saafara ndax kat dañuy dox ci cadre dimbilante te dañuy wax ni am na benn bis maam Cheikh Ibrahima Fall di wax ni addi du yàgg yàgg yàgg yàgg ban fay wax bàyyi jëf te am na ci mbooloom ñoo xamante nii bëgg na noo jëfal ci association bi seenu ñaq te il faut que nin ko mën a jëfe mooy ñu fekk leen ñu fekk am loo xamante nii dañ cee jël seenu ñaq def ko ca te yaakaar naa ni fekk na nit ci seen kër ay yoon yoon di laaj ndimbal kon ko loolu suñ borom dogal na ñi mbooloo man daan fekk ñu ñëw teew kon sañ nañoo laaj ndimbal ndax kat dañuy wax ni ay seex sax mooy ñaar ñoo xam di ni ñoo bokk ndey ak ay seex dañuy wax ni bu nu amee jàngoro suñ bëggee jàngoro ji wër nañ leen yalwaanal kon yalwaan du caagi ne ku ñàkk rekk koy def ku am dana yalwaan ndax dañuy wax ni am na benn bis ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci kër sëñ bi ñu ni tey jii kat ku tëriwut ñaari isib ak misif doo añ ci añ bi maam Cheikh Ibrahima Fall moom ma nga beru fam beru rek di sikkar ci mag ñi am na ñoo xam ne danoo wax ni xawma looy wax waaye bis bu tari jotee boo tëriwut doo añ biñ ba nga xamante nii waxtu añ jot na ba bool bi ñëw mu ñëw bëgg a sukk ñu ne ko boo tëriwut ñaari isif ak nisif doo sukk biñ demee ba nga xamante ni ñooñu caaxaanunu wax na ni daa jël bool bi ak raxasu mi ak lan la le woon bool bi dem ba ci jaww ja mu toog fa ni leen yii nit ku munta ñëw fii doo añ te loolu yaakaar naa ne moom kenn mënu ko ci ñoom façon joloog bu nekk wax na ne joloog nan ko ko wàccut ñu daa dem daal koy wax sëñ bi daanu ko ah, yow kat sa dof bi defati na loo xamante ni nii jaaxal nanu sëñ mag bi daañu leen lan la defati ñu ni ko moom kat añ ba nga xamante ni moom ko toggoon ma ak moom ci kaw jaww ja sëñ mag bi daañu leen wax ni leen lan ngeen ko wax bam tax mu def noonu ñu ni ko dan doon kafa moom daan ni ko ku tëriwut ñaari isib ak nisif doo añ bi waxtu tari jotee ña fa nekkoon waaye bi bool bi taajee biñ ko waxee ne ko taren ñaari isib ak nisif bi mu demee ba nga xam ne caaxaanunu daa boole bool ba ak raxasuma ak laytaay ga nga xam te ni moom lañu ëmbi woon bool ba yéeg ba ci xaw jaww ja te ñun mun ñu faa fekk sëñ bi daal di wax ni ko ndaw la dikkoon ni ko bu ngeen demee nee ko sa sëriñ bi nga yaakaar tey ëllëg nee na nga wàcc bi ndaw li dikkee wax ko loolu maam Cheikh Ibrahima Fall daal di wàccewaat bool bi nee na dem ba ca këram daal di wut ngëndam booli daal di dugg ca dëkk ba di yelwaan di indil ñi nga xamante ni ñoo doon jàng ngir lan li ko sëñ bi mag bi yónnee woon daa ko boo demee nga ni ko ki nga yaakaar tey ëllëg neen nga wàcc maam Cheikh Ibrahima Fall booba ñàkkut waaye li ko sëñ bi wax loolu te fekk ñee nga xam te ñoom ñoo doon tari ñaari isif ak nisif la nekkoon ca bool ba jëfandikoo nañ ko te suuruñu bool ba jeex daa daal di jël bool ba dugg ci koñ ba daal di dem yalwaani gone yi jëf ju rëy jii ñu def defal ko ak mbokk jëf ju ji ñu def defal ko sëriñ tuubaa jëf ju rëy jii ñu def defal ko dëkkandoo di yalwaanaat lu ñuy dajale bëgg koo dimbalewaat képp ku ko yittewoo góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ne làmb poosam ñëw jàpp ci man nag defe naa ne war naa fee wayaan man moom maa ngi wayaan boole ca nag di yalwaan ay billet nag laa bëgg sama 2000 la ci jiitu man ay billet la bëgg nañ ma sarax te may ma ma jox ko gone yi ba lii may luñ ma jox nag Baye Sidi mi ñu tudde bis bi laa ko joxeel na ma ñëpp ñëw mayle ma tas ta sarax ma ma joxeel ko Baye Sidi. fii si kër nijaay fii sama kër nijaay waaw kay. xeeb ma ne na nañu ma junni junni téeméer téeméer ma ginnaaw dañ ciy dimbale way way way nit ku nañ ma jox ay téeméeri ki junni ma yelwaan la xale bi soo ba léegi mi ngi tudd koo xam ne dañ ko tuddee ci mbooloo mi loolu lépp daa war a yëngu mooy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina kooku nga xam ne xamul ku di lu sëñ bi wax mu def ko xamul ba jëndoom dafa weesu xeeb ko a Fall raw na ma ne jox leen naa dee Sëriñ Tuubaa Cheikh Ibra yalwaan gone du ko yalwaan ab sànq du ko mën ma ne soxna yi yéen da ngeen cee bokk tam lu xew ñëw leen te téeméer téeméer mbaa ngeen fukk fukk ma mbaa ngeen ñaar fukk ñaar fukk gone yi li ñuy def ñëpp da war a dugal seen loxo dafa war naa téeméer bu ko kee tey maa génne waat junni bopp أعاذني الباقي من الشيطان عند ممر وفي الأوتان أحاسن الباخي من السيطان عند ممر وفي الأوتان عبادة ابتدعت بسم الله loolu rekk moo wér ndax ñett ba ñeent ba juróom ci say bokk buñ jógee maase indi genn seede ci yow kon jëf ja dafa landi te it ku nag xam Sidi Thiam ci askanu ñeeño fii ci Touba xam nga ne liggéeyal na fi aw askanam lu mérito ak bis bi mu am tey ndax daayira bi nga xam ne mooy mu saxaratul diina nga xam ne tey moo ma dimbale ba may ma mën a taxaw fii di wax jëf na ci loo xam ne kenn du ko fàtte ndax ñun ñi nga xam ne dey ñu ngi wommat daayira bi ci ñaari at nañ ne ki ko wommat fukki at ak ñeent jàmbaar dëgg la kon gàcce ngaalaama waaye jëf joo jëfi suñ borom la du ma sa neen mukk ci àdduna kon sëriñ si di jërëjëf ginnaaw bu ñu santee Sidi ba noppi ñu sant askanu ñeeño wépp waaye jooyal suñu cant nag ci gone yi nga xam ne ñoo dëkk sura loola jàpp naa ne su ma waxee tey dana bari nopp yoo xam ne yàgg nañ ko ndax fii ma taxaw ci sura de lu ma ñeme wala lu ma man ba tax ma ànd ak samay mag ñu may dënkub liggéey ñoom ñi ñoo tax kon noo ngi soññiwaat ñëpp di santaale Euh, daayira bi nga xamante ne ñu ngi ko tuddee daayira maam jaara te sëriñ seex Thiam jiite ko mu mel ni su ma yëkkatee ay kaddu rek yóbbuwaale naa ay kaddoom moom it mu dëkk ak yéen di seen jarbaat di seen rakk waaye nekk koo xam ne ku bëgg a liggéeyal seexul xaddim la ndax daayira soxna jaara bi ñu yor fu daanaka fukki at yeeg nangam yi moo ko yor daj na ci loo xam ne it mburu daju ko ca taal ba waaye lépp bëgg ndamal seexul xad bëgg ndam ci seexul xaddim moo ko yóbbee kon sëriñ Cheikh noo ngi lay ñaanal yow it lii nga xamante ne moom nga àndandoo say bokk ànd ko say xarit suñ borom dimbalee jiite ko bay meeg si liggéey boo ci jëf ak loo ci mas a def yàlla na suñu borom fayal lu kawe sant jigéen ñëpp wa wa kafa ni yasawil malaahi kull alhamdi wa lil maliki arrahmani wa زكى الرحيم بالنبي رجيم وآله وصحبه النجوم بالله فارقت النصارى ولي وخيري قطعا بلا تناولي إلى النبي وجهت خبل فندري ما قد كفاني العدا كالكدر للمنتقى وجهت في الدكار ذكرا به غد كبك بل مكارو lil murtabaa wajjahtu fi safina xablu sana yaxludu fil madina axlastu xidmati lada konaakiri lil mustafa almaahi bila manaakiri هرب مني قبل في كرم بسا مبارسي ولسوى يحبسا نفعني النافع في لبرولي بما به يعبتني كل ولي ملكني المالك عند داومي ما قد كفاني عدا تساومي إلى النبي وجعت عند بافلي قبل بما بي أنا رمى فلي للمنتقى وجهت في قبل بساء Islam ak baraka man mii di wax ak la mu ci waxal ci kaw suuf koy yóbbu hôpital kon yàlla ñu def lii jox ko mbooloo mi jox ko sëriñ Dame Thiam mu nekkoon kenn ci moom sori lañ ko jox noonu di ko rendre hommage moom it ci jotaay bi oh. bu paree ñu woo soxna Anta Gueye moom it jàkkay Serigne Abdou Khadir. ni ñu nekkee benn ni ñu gëmee seen bopp c'est très important ci loolu kon nangeen ngeen gën a góorgóorlu eh, lu mel nii am na solo tey mat na yaatal comme ni nga xam ne noonu la ko Baye Ahmadou Diong waxee c'est-à-dire boo gisee may jël ci moom exemple ay waxam daf ci am loo xam man dama dama ciy jàngat mooy sànq dégg nga mu ne Baye Sidi tey suñu suñu yóbbu maanaam suñu fekkonte ne dañ koo tuddee benn match. wala ñu tuddee ko jenn làmb wala lu mën a doon loo xam ne sax du lu yàlla gërëm suñ ko wooyee dañuy dem loolu man déggin bi ma ci am mooy Baye Sidi daa ne ci li mu war a ne te du nekk mukk ca la war man déggin woowu laa ci am maanaam moom dafa xas dafa xas sangewu dafa xas sangewu ci lu baax ba mënut koo génn moo tax maanaam sangewu gum san xas sangewu sangewu tey ci ñii ci ñiy ñaan wala ñii ñaan lu dëgg-dëgg xam nañ lan mooy baatu sangewu baatu sange maanaam xam nañ ko maanaam tey boo xasee sangewu tey dara mënatulaa laa burung lu lu dul lu jóge suñu borom mënatu gàllankoor mi ngi mel ni nag ci wàllu ñàkk yar ci doomu aadama li ñuy wax këngiislu nit bu xasee këngiislu kenn mënatu ta wax lu dugg ci boppam kon nit bu xasee sangewu tamit kenn mënatu koo def lu ko jàpp lu dul lu jógee ci borom kon Baye Sidi dafa xas sangewu ci lu baax ba maanaam loo lu baax loolu mënatu koo génn dem ci lu bon moo tax kon moom mat naa jox bopp maanaam tey su doon ci cadre sëriñ ma ne gis naa ci moom ay qualité yu war a mën a tax nit ñëw jébbalu ci moom bu dee ci wàllu jàppale nit ki ci ay jafe-jafeem bu dee jàppale ko ci wàllu di ko conseiller yooyu yëpp bàyyi siidi caam dala ci taxaw ci saa su nekk kon ñi ngi bañ a guddal kàddu yi lépp lu ci jub nañ ñu ko nañ ko sant yàlla lu ci dëng nañ ñu ko jéggal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonenteem bu tedd bi alayhi salaatu salaam. santaat suñu yaakaar ja bu baax Cheikh naa Cheikh Ahmad Bamba. di leen sant bu baax ci taxawaay yu am am solo yii nii. muy mbooloo mi nga xamee ne dañoo lënkaloo jàppoo nekk benn. di jiital ci cant gi mooy seen kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñu nekk ay dëkkandoo yoo xame ne euh, dañoo xàmmee gis leen ñu nekk ci koñ bi dëkkandoo ak sunuy waajur ci dëkkiin wu rafet boo xamee ne mën nañ ne wi gën a rafet ci dëkkin moom lañ dëkki ndax dëkkandoo dafa nekk loo am am solo ci lislaam ndax yonente bi alayhi salaatu wassalaam nee na jibril ñëw na di ko dénk dëkkandoo ba mu jàpp ne dana ko wax ne ko soo faatoo dëkkandoo dana la doon ndax li nga xamee ne noonu la ñu tànne lépp ci àdduna noonu lañ mën a tànne dëkkandoo ndax it dañuy wax ne ci jamono yonente bi alayhi salaatu salaam amoon na nit koo xamee ne dafa xawoon a doy waar lool waaye bi dëkkandoo bi di jaay këram dafa ñëw mu ne ko junni laa koy jaayee mu ne ko dinaa la ci fay ñaari junni te kooku sax du woonul julli loolu nag li ko waral ki nga xamee ne moom la yoroon kër gi dafa nekkoon dëkkandoo bu baax dëkkandoo bu baax dafa am solo te ñoom ñi ñuy ñoo xamee ne ñu neex a dëkkal lañ ndax su bànneex amee ñoom ngay njëkk a gis su naqar amee ñoom ngay njëkk a gis ni ngeen dee sant koñ bi ñoom it koñ bi amee nañ leen njukkal goo xam ne ak cant la te jàpp naa ne loolu du caagee ne ci yéen ndaw ñi ci la tàmmulee waaye dañ koo nàmputal ci yéen muy seeni waajur yu baax yi te su ma ci tuddee ku mel ne sëriñ Sidi ak sëñ Ibrahima danañ wecc mbooleem ñi ci des ñëpp góor ak jigéen danañ ca dugg mooy lu am solo mooy askan woo xamee ne askan wu am am solo la di ci sof rek ci ki nga xamee ne moom laa fekk mu doon waxtaan mu def waxtaan wu am solo waxtaan wu pertinent woo xamee ne su souligné ne ay points yoo xamee ne yoo am am solo la mbokk dafa am loo xam ne dafa nekk lu am solo hmm. nit ki mën naa ëpp ñu ne waaye mënut a ëpp ay bokkam nit mën naa ëpp lu mën a doon ci àdduna waaye mënut a ëpp aw bokkam su neexee li ñuy wax li wolof di wax naan su neexee bokk ci gën su naqareet bokk ci gën dafa nekk lu am solo ndax li ñu nettali ne ak bokk bi ko suñ borom subhaanahu wa taala bindee dafa jooy ne ko yaa ngi may ñu yóbbu ci ñoo xamee ne dañuy fecc kóllëre di tas yaakaar euh, wax ko xeet yi nga xam ne moom lay doomu aadama def yépp damay ragal su ma fa demee mu dog dooma suñ boroom ne ko ndax mën na ma laa defal loo xamee ne ndax dana dal sa xel maa ngi lay dox benn garanti boo xamee ne képp koo xam ne dog naa la dog na la dinaa ko dog yàlla nañu yàlla musal ci dogu bokk kon dog ak mbokk dafa nekk lu am am solo kon képp ku ko dundal jokk nga ko waaye képp ku ko dundalul nag dagg nga ko mbokk nag yetti moo koy dox moo koy dundal mooy wax ju rafet wala dox dem seeti sa mbokk wala moom mu seet si la su nekkee ci ay jafe-jafe wala su nekkee ci bànneex wala sa nga am kàttan man koo jëfal jëfal ko ñett yooyu nga xam ne mooy doxu mbokk nag benn du ci sax karaw nga xam ne ki doon waxtaan léegi junj noo ko wax ci lu am solo ñett yoo xam ne kuy dox ak mbokk danga koy moytu mooy alal akub juddu ak daraja yépp su ngeen dee dox ak mbokk wala ngeen bëgg koo dundal da ngeen koy teg ne xool li leen boole te mënoo leen a tàqale ndax it askan ngeen woo xamee ne ba àdduna yi àdduna ba léegi ci jaamu yàlla ak dundi seenu ñàq ak gore ki lañ leen xam loolu nag muy tagg woo xamee ne woo ama am solo la ngeen nekk ca ba Sëriñ Tuubaa mi nga xamee ne lépp lu mu woote ku ko wuy ji alko bi mu wootee ngeen ànd ak la ngeen amoon ak lépp ñëw jébbal ko seen bopp ànd ak moom ci àndin wa gën a rafet yàlla nañ ko àndeek moom ba ëllëg yoomal xiyaam mooy lu am am solo ca loolu ci lañ leen xamooy ci ngeen nekk ba léegi ñoo ngi leen di ñaanal daal mbooloo mii ngeen xam ne moom ngeen sumb mu di ay gone yu ndaw ak ay góor ak jigéen seen kilifa yi ñaanal leen ñoom it teete leen ndax li ñuy wax naan gunge am na solo waaye gunge yeggul ca baax ngeen fexe ba mag relève bi nga xam ne dañ ko yoroon ngeen fexe ba teel leen ko bañ ngeen fexe mu bañ a laal suuf lii ngeen di def ngeen koo nàmp te nit nag dañuy wax ne lépp loo xam ne jàng na ko ba mokkal ko war na koo mën a tari te fii ëtt la boo xamee ne mooy askan woo xam ne damay wax ne doomu aadama du xëy suba ba ngoon te jëfandikoowut loo xam ne ak ñeeño moo ko defal loolu lu rëy la lu am am solo la yàlla na leen yàlla musal lépp loo xam ne dafay dog euh, ndaw te musal leen seytaane te kàttan na leen te sàmm leen te am na ku ko wax fi léegi ngeen di ànd ci ci eh, am na ku ko wax léegi ci dëgg ngeen sëñ Harouna maa ngi koy nuyu bu baax ngeen di ànd ci dëgg tey waxante dëgg lépp loo xam ne dafa nar a yàq seen association muy ci lu mën a doon ngeen seppe ko teg ne dafa seen jiital ci dëgg ak it ngeen xam ne lépp lu ngeen mën di nekk nag ngeen ca bàyyi xel ne nag ay taalibe Serigne Touba ñeen te taalibe Serigne Touba suñ ko waxee comportement la engagement ak responsabilité te ñett yëpp dafa diis sëñ Tuubaa ku ànd ak moom xamal ni du ak col du ay wax waaye comportement la ak engagement ak responsabilité wasalaamualeykum wa rahmatullah delloowaat ko wala ñu fat ko ci kër gi ba pare doo ko delloowaat soxna yi doon togg tamit ñu ngi leen di jaajëfal ndax ñoo nekkoon ci waañ wi te suba ba léegi dem ba léegi jaajëfal lañ leen bu baax nangu leen ñaan